This money. waaw ba tax na bi ñu leen bàyyee ak ki nga xamante ne si mooy njaaña ci mariage bi gis neen macha allah ambiance bi ni mu demee ak Samba ñu ngi tax ak ñi nga xamante ne si ñooy sunu hôtesse yi macha allah nee naa la ku ci ñuulul ku ne danga xees te ñëpp rafet du ma def lu dul euh, di leen laaj macha allah nu ñu gis li nga xamante ne si mooy xew bi ma maa ngi lay maa ngi delloo nuyu. tur beeg sant bi. maam Diarra Diagne. ci bis bi. ah di doom si bis bi parce que borom bis bi sama bàjjen la di bàjjen ju ma bàjjoo. ana sama caméraman. di sama bàjjen yi nga ah, ma def dara bàyyi ma sama bàjjen ju di sama morom. noo gisee li nga xamante ne si mooy xewu bi. xew allah loolu cat laf cat doomu la ñuy wax zéro faute ci xew mi macha allah. nga di ko conseiller lan ci biir néegu sëyam maa ngi koy conseiller bu yeggee mu sëy mu def comme ndeyam rek yaayam a ngi nii booba na ngeen si moo ngi fi def fi waxu fi def fi dëli tamit te noonu rek lay def ndax askan bi mu bokk dañuy sëy di ko ñaanal lan maa koy ñaanal bu yeggee ah, mu taaloo fa Seydina Mouhamed jëkkëram ji nga xamante ni is bu tarixiya la bu yeggee mu teg si benn soxna jaara rek wala seexul xatim ah, ba tax na macha allah sa sañse doxul jàmm kan jàcc sama robe nii maa koy sant di ko gërëm merci beaucoup ok. ma chérie maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. tur sant bi. maam Roqoy Diagne. di lan ci bis bi. bis bi di ci doom di ci tamit loo xam ne nii tamit lu rëy la ci man ndax Njaaña maa ngi moom mën ni suñu papa yee bokk ba pare moo sama yaay sen papa yi bokk ak ndey ak baay ñu wëlbati ko bàyyi la ko sama papa kon bis bi lépp laa ci. loo ñu wax Njaaña. Ah, de moom li ma xam ci moom su ma koy wax du fi jógee sa parce que Njaaña nit ku baax la man mën naa ne Dakar laa dëkk mais damay ñëw fii temps en temps mais su ma ñëwee moom laay àndal moom laay nekkal Njaaña du mën nëbb dara lu bëri da koy partager ak man ma xam ko tamit ci nit ku teey nit ku maandu nit ku am fulla nit ku bëgg mbokkam ku diiñ ci boppam te gëm naa ni man jikko bi ma wan bis bu kër gu mu ko yóbbu dina fa toog di ko ñaanal ci sëyam bi li mu ci bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal. amiin noo gisee li nga xamante ne si mooy bésu tay bi. ah bésu tay bi moom ñi ngi sant suñu jëkkër waaw di ko gërëm suñu international bi c'est parce que bés bi mën naa ne dara jeexu fi macha allah lekk doy na en plus organisation tamit mooy loolu. nga koy ñaanal ñaanal tamit ni ngi sentu ci sey bi yalla defal len ko ñu dund ba am ci njabot gu barke ca ko ca kaw ca kanam ci lu baax di len ñaanal tamit ku len di xaar yalla na xaddu sey bi mu doon sey yiñ takké ci aras ci darajee mustafa ba taxna ma chérie sa sañsa doxul jaamu kan mo jaax ci sañsa bi ah sañsa bi nak suma alal mo ci jaam suma jëkkër ji nga xamni dafa baax gën bëgg ma da dara xewagul ba bëgg nga ñaanal ma rek mom tamit mu defal ma kom taak sam mel ah yalla na la ko defal légui bala yaak jaay amin merci Ya Rasulallah Kudusa Kudusa Kudusa Kudusa Kudusa Ya Rasulallah Kudusa Ya Rasulallah

Yes, sir.

Somebody, I could run alone. Somebody, I could run alone. si docteur yow sa loxo yi ca kaw sa loxo yi ca kaw yaa ngi sañ sanga sañ sanga kan moo la sañ sanga xanaa taale ngay taale la nii سيدنا محمد Sonho, você Hüseyin, Hüseyin, Hamdan Fatih Köre Hüseyin, Hüseyin, Hamdan Sayar Görüm, Sabah Görüm, soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ya, fay sax si. sama cameraman tur beeg sant bi. am sant la am sant la. di lan ci bis bi. waa di xarit di rak ci bis bi. loo ñu mën a wax ci ki nga xam ne mooy borom bis bi. Njaaño de baax na dëgg yàlla ba dara andee ba léegi dara ñaawul. waa Njaaño Amadou Ngoor ñal li ñuy wax ne bu demee. waa ja baax na dëgg yàlla kenn du moom daa baax. waaw noo gisee bisu tay bi. waa bisu tay bi macha allah dëgg yàlla ala taw bi na bis wuyu na borom. nga koy ñaanal lan ci bis bëgg di ko ñaanal bu demee mu toog mu ndax benn sëy neexul mu ñaanal ko ma jaboot gu barke mu dund ba am ko lu bëree si jaay Seydou Diodi ko conseillé lan waaw di ko conseillé na ko sëy neexul bu demee na muñ rek bu demee na muñal ñëpp ndax lay kër baay kër nday du fenn bu demee na muñ beneen kër lay dem na muñ bu baax ah ba tax na ma chérie sa sañsa doxul ci jàmm kan moo jaar ci sañsa bi waaw dëgg du neex tamit sama bàjjen sama maama ci jaar waaw kay ak sama xarit bu baax a baax waaw sama doom nday boole Jóob waaw